tur day uyu borom jas na pire soo ko bëggee fii si biir Gambia bi dawal foofu sa quality jas na yow number one stop shop ana sama jigéen ñi dama bëgg ngeen jox ma seen nopp garme yi ndaxte quality jas na amal nañ leen ay till yu toj daala poos abaaya yu yiiw waaye amal nañ leen ay boreda yu rafet boreda yoo xam ne pour góor ñi ra ak pour jigéen ñi amal nañ leen body scrub yi nga xam ne nii dafay defar seen yaram bam nice waaye it fàttewuñ fa diw yi ana sama jeeg yu pare yi quality jas na amal nañ leen fa indi cuuraay cuuraay yu neex house spray ak bépp xeetu baax baax pour seen biir néeg dama ne atum ren jii ku sa jëkkër mere ku ne yow la neex ndaxte quality jas na ñëw na si dëkk bi pour defar sëy yi makeup artist yi bàyyi leen gannaaw ñu ngi leen fa amal ay makeup product yu quality waxu leen léegi nii foofa sa Westfield jàkkaarloog monument bi wala nga jokkoo Quality na si ak Quality Jasna taaral sa bopp taaral sa néeg waaye it bégal sa alaaji aas. Gambia namoon ngeen waaye maa leen raw war leen ko Fatou la miss you guys how you. I'm fine today, and I was fine yesterday also, and I'll be fine tomorrow also. <laughs> yes. You, you seems to be very, very, very nice. Okay, thank you. You also. And what's your All name? People in Gambia are nice. I haven't met any people that are not nice. Wow, what's your name? Wim from Brussels. I'm going back to Brussels. That's where I used where to live. Is that where they? That's. uh I thought this was to fill me. Oh no, this is a microphone. Yes. Okay, and that's uh, okay. You seem to be nice. Yeah, thank you. Thank you. That's how you are. Uh, yeah, I've been like that the past 57 years. You seems to be old. Tall. Tall, but not old. No, not old. 57. 57. It's not right. bad. Eh? So, why were you in Gambia? I was here for 10 days. For 10 days? Yeah, for work. I'm working on plastic waste management. Oh. Did you know that that's the biggest problem of Gambia for tourism? Plastic waste. Why? And what's that? Tell us more because the beaches are polluted or not clean. Lots of plastic pollution along the road, in the villages, in the city, in the communities, on the beaches. So I would say less plastic pollution, more tourists. That would be very good. And that's what I'm working on. I'm trying to explain people how to better collect the plastic waste, how to recycle. And if you do that, more people will return to the Gambia. So who invited you here? Who? The Ministry of Environment. MECNAR, Ministry of Environment, the Ministry of uh, Trades, and Ministry of uh, Tourism. Yes. So next time when you're going to the beach, why not you invite me? And when you're going back to Brazil, we go together. I want to enter plane. I never enter. Uh, you want to go in the plane? <laughs> it's not so nice the plane. You just sit there. No, now we're not talking about just sit there. I want to go to the plane. You want to go to the plane? Yes. It's not nice to be in a plane. You're just. you invite boring. me. It's boring. Yes or no? No, because it's boring. It's you do want me to go to Brazil? Ah, <laughs> to, Brazil. You're welcome. <laughs> Yes. So what food do you eat here? Tell me. Uh, I have to go now. I have to go. I, lo I love the food, the food, the fish. Excellent fish. Thank you. All right. Bye. Have a Bye. Nilma wa Brazil. Babu kai. Suma bena harin mugi deka Brazil. Hama karma fa deka. Latte <laughs> makana fa deka babu. Babu da nga inyan. amulomboka baraza no ma, ma, man si gannaaw balaas yi laa am <laughs> guess what guys you know what dama yaaga dëkka brazil dëkka for five years sima haydara ma daha sima borom gambien talent sima bon loo def loo def yow itam doole am benn place loo def dama abon halisam. Mm-hmm. far baabu mënuma ko fay yaa loolu la indi am loo ful la am loo moo tax baabu bés ni kit léegi daaxa naa la semestre <laughs> avenue yo yo yo ñu ñu daara moo ngi naa yo bi ko tàyyi ma ma moom airport bi Gambia may leen ma ma noppi xam nga Fatou ñëw xanaa guys namu leen ma I want to see you say nama naa la ndax la ne waxee nama naa la si soose nge nge nge meyaale ye kanu ah ye naga nge nge meyaale ye meyaale a meyaata baake <laughs> baabu ba si kañ ba ba léegi tey baabu olof ba kanam. séeréer laagal séeréer. nama naa la. Ah. déedéet woo ma la nama naa la léegi laagal séeréer xool séeréer. ah, ah bi dafa xaw a <laughs> nafiyo meheme tambinda tambanda rugu jaas saka jaas ah, kon nag séeréer yi maa si nabiya saari yoo xam ne déggu Kona bisikanam, let's come back. Go. Guys, guess what? I'm not yang si Royal si airport. Why na mama sude? You're all in. Jangan mama lah. Dua dia nangku madela. kumadela dia nangku madela. Ah, dua dia nangku kumadela Wah, semua friend gadi. Mana mana, mana na mana fun lala mana Mana ah, mana mana Ah, man, dama lagi serang mana man ni ama. Jangan yo jonge gade. Ah, dama jang rak, dama gis ni gade mota mai jang. Iya, ni gade defal sa jikar. Ah, kana def bombah rak. Kamu naka? di jéem rek naka jàngalal gay mas na bi nge setan jang ma janggal gay ah jëkkër da xam nga mom dañ koy toppatoo su ñëwee nga nuyu ko jox ko ndox mu naan dend ak mom di waxtaan ak mom daal duñ ko seuri jëkkër dañ koy di ko jege di waxtaan ak yo yoonoo tudd man ma ngi tudda Jé Cissé. Eh? Jé Cissé. Wah, santa mereka koyaha. yaha. Ah, si sekunda aku ke dega bahu santu ya. Santa bini ama de. Si selek lagi. Ama mai de ke birka. Ya ini ke birka. Wow. Kalau wa birka. Birka menyung fah di santa ya lara. Nekala de oye birka. Ah birka. Sate ba. Sate ba. Wow. Birka menyene ke briks. Nyumunu tawa birka menyene briks. Menyene briks. Ah lola nyin mau kamu ngapai briks si ah dedet am ay virus bir kaamara mom dafa am gannaaw neexna na ma sha allah mom kay ku fa dekk ku ne do ko reej so yow looy def si airport bi jamono ji. lu may def fele suma domi baay mu ngi nale man ak mom ñoo bokku ben deret dafa wara delu mu ne naa ñew gungé ko ndax mu na a dal ne suma gisé gisee sama niroo la day firi. Ah, yenen duro bujuc bujuj. mu ngi nale tok loolee ndiroo bujuj ndaba jaj bujuj yeb Ah. xam nga ay mbokk balaa moo baax ah. ngeen niroo boo ko xoolee ne kii depuis biñ dugg see am na ku ma xool ne yéen lu ngeen bokk ma ne ko ñoo bokk dara te loolu laa bëgg ande loolu naa def kaana catu ngeen a téye ndax loolu naa def ah moom kay xam naa ñaan yàlla rek musal ñi waaw ndax te cet dafa gaaw mhm. te suñ mag bu baax la bëgg nañu fonk na ay mbokkam waaw te loolu rek moo am solo ji nga àdduna bii da nga war a bëgg say mbokk fonk say mbokk ba bëggaale say dëkkandoo te yow nag danga maa gis rek doy ma suma xool sedd gi nga ngeen ma rombe fële laajal suma seet bi ki mooy ñaareel xaritu jëkkëram dama ko woon ko ñi moom rafet nañ li mu ne ma ñi ñooy ñëw caméra fii waaw léegi lu ma jaaxal yow sa doom baay nga àndal te ñuy gis Afrique especially Gambia su waxee ñu doom baay kii ñu luñ gaay duñu wax ñuy tongoo lii dafa neex lii te yaayam lañ ma tuddee aji jeesey waaw yaayam ak suma yaay ñoo doon wujjee ñu tuddee ma yaayam te loolu rek doy na kontaan ñu sama xol dafa sedd si maa ngi koy ñaanal yàlla muy dem di ñëw di dem di ñëw ba mun ñee yóbbu ñun ñi nga xam ne ay doomi baayam lañ am na ñaari jabar ñoo gën a baaxat lekkal naana rek gisoo ni ma pataay ginaari na dañ ma koy ñuux rek ginaari ñuux su la gaa wati doomu suñ ya e ah. ma yàkkalee damay tëdd di nelaw ma ew ñu ne ma meew ma ngi jinjar baa ngi dañ ma jinjar léegi ba ngi rotuma nit jinjar rek laay niru léegi ñoo di sa nduru won jinjar wara wañé ko way nduru jinjar ba paré ne ko puccu gis nga ko de ay ya, panket nga yo ñun ñaar ay panket le dép bi ma juddo ba tay ya nak ñi ah. la mel yow sama mag nga airport <laughs> eh, tas na jëlal leen mako caméra jëlal leen ma suma xarit bi ci Gisee borom bir kaama borom birix ni la jigen wara mel jigen da nga neex deret am filin am pacaacaaj so ko defut ñu defal la ko eh babu kay fi babu dama kontan babu ku don do interview ñu ñaara nduru wa <laughs> waaw yéen ñaar ñeneen ñoo tegte wa da eh, su non nakam yo semestre nga de xaamewuloo ma ñun ñoo andon last time kay kay way bro bu ma rusloo way bro eh yo yo Hey, eh, bro, bro definitely bro I'm like it's not like la. No, I, I yeah, I'm good. I'm good. You are coming. Bro, I'm coming. I'm good. I'm coming. <laughs> Jangan sen boga la nasa jekar. Ah? Ki hajan kat la de mine I'm coming bro. I'm coming. Ah? <laughs> Ni len ko dengen. Mungi ni sa semester But You work so hard for Gambia and Gambians should recognize you, Mr. No, Cisse. No, no, no, no. Ah, you didn't know me. I, I know you very well. Where? where? At the drug squad. Come on, yo, jaay nga ma ñaan naa la ngi. da Gambia. and President Bara, I want you to look at this guy and talk to him. to this guy. you work so hard for Gambia. Mangi fine Madam Sama congrats. si loo nekk. maa ok Santa, ya Alhamdulillah. yaa ngi àndal nii semestre la ba pare muy xajaar. kii suma xarit la waaye dafa delloo mu. <laughs> kay fii ñu waaye yow man démb rek laa jógee Amérique. <laughs> waaye otherwise naka ngeen def. yaa ma ne waaye Santa, bi Santa gënu ko. Ah. Wow, wow. sant foo ko gis lek. Santa sant gënu ko. <laughs> da nga liggéeyal Gambia so hard please dinaa dinaa mind benn one minute rek. you work so hard nekkoon uh, PRO si seen office you know it's been a minute. yeah um thank God Santa yala, because at the end of the day uh, ni ki moom ni ku nekk loolu nga ñaan we all have a quota to we all have a responsibility and each has to play your quota. So thank God, Alhamdulillah, I was there as a PRO, and now uh, thank God, someone whom I trained and mentored is the current PRO, and I'm always proud when I see him on the TV. So that's uh, that's life anyway, you know. Life. What are you doing? I'm still there. I'm the Commissioner of Prosecution and Legal Affairs. Yeah. But to be honest, Fatimum kuko ham ham neken momut ko man degarek ma mom Um I remember nek xale bu ndaw di Ministry of Information. New ñew CEO yow information do no stress. That, that that's what we always. Yeah, that, uh, Lolo Mom, uh, I think uh, that is our responsibility because it's part of our core mandate. I'm just encouraging the young ones. Let them uh, know that um, I mean we are here for the public, and that anytime journalists do approach you for uh, any information with regards to activities of your office, you have an obligation. So we all have seen the um, coming into force of the uh, information um, um, um, um, law so it is, I mean, it is part of our duty. So there is no need for one to act otherwise when the, the journalists or the press want to access you with regards to certain information regarding activities of your office. It's been a minute. Gisatunla, Degatunla. Why Lola, that is uh, that is it. Come Dafanekane. The area I was, uh, it was with the media every time you were seen on TV. But now thank God, I'm serving in other capacities, which alhamdulillah. Oh. No, I'm just conveying a friend who is going back. Yeah, yeah, he's going back to Germany. Thank, thank you, madam. Ni rek la Gambian TV uh, live and direct kay bro bulma ruslo. Wa man tam dama bungé gaay. Madam. Hello Gambia na ngeen def? No tuda. Mo mu galé. Galé. nga Ma da dem ci biti da What's your name? Uh, naka? Yes. Sekou Neblet. Looy def Gambia? No, I'm visiting Gambia. Yes. Oh, you're just visiting. I'm just visiting. Yeah. Your name Sekou from where? It's from Guinea. It's from Sekou Touré. Oh, you're from Guinea. No, I, my, I'm African American, but my parents are very political, so they gave me an African name. So you're from America? Yes. When you were going back, can you take me? Did you want to come? I want to come. That's <laughs> why. You want to come with me? i <laughs> yeah, first I'm going to Germany though. Yeah. yeah. Still take me to Germany. I have my. Right, same, same. <laughs> so how was your holiday in Gambia? We we were working hard yeah, we're making making a film about this gentleman here. Uh, mm-hmm. What have you done that you know you have to? He, he was an illegal immigrant to Germany, ended up in jail. <laughs> they caught him. Yeah, yeah, yeah. But but uh, has a very happy ending. He made a good life for himself. He has an honest job. He has a family, and he's an honest citizen now. Yeah. We're proud of him. Gambians should be proud of him. Thank you. jaama rek si. ne ma caméra ana baabu jëlal nataal. waa defal defal maa ngi kuul man ñii laa war a rek. gaale laa tudd jaalo. gaale li def si diaspora bi moo especially jaamani dafa bari si lan nga ne. music. si laalal tuuti woy non man uh, organiser rek ah, organiser dama lay organise party ah just small things. Uh, xëy na in the next like three to six months di nga dégg waaw fii yow ma om ma bañ ma gaale ma bañ waa de understand na ba si gaale gaale ñu ngi nga ñëw de nga bye baabu ka téema rus baabu di interview ñu ti rek duñ dem no dinañ dem moom moo xam yo xam naa yo moom di ngeen dem man loolu lee ma nag bés ni ki tey Nabiya Sarr baabu bokk sama sa avenue mi na xamul kenn dina dem waaye moom dina dem ba si kanam guys, you see this guy. Kimoy President Baro natatambi. Kimo din natabaro. Suko din natamu. Simal tatiduyam. Yem, ya, yem beli na pabuga. Yolu ya, ya, heo. Lala la baro jaw. Banga neka di ko like like yumi. Guys, if neka bihay cool. Suma goro bala Yo, mane wala askan. Suma ne mere nako. Boss NPP la mere. Guy den kombekte. Guy NPP. Why? Mungi natal di video. Guy nyina lutamu natal. When was it? it? What was it? Nomination. Which Parent ceremony. Parent ceremony. From Brig Evan? Yeah. No, BCC. BCC. That's very unfortunate. Okay. It's sad. But yeah, you cool. I'm Sunday. I'm there. So yeah, you ba? Yeah, I'm my boss. That's my sister. So um, happy birthday to you. Uh, recently, my one birthday. Jërëjëf, jërëjëf. Ana birthday cake. Sama doom mu ne jëndal ma ko, maa ngi moom laa dem jërëjëf. Da nga tukki woon Abuja. Ah. Yeah. So, but you work so hard for Gambia. Kukabugadega, uh, kuko buga dega, kuko buguta dega. Gambian talents mom ken faralun faralun ken talun ken uh, lungis lun gis Gambia, and we are in for all parties. But so gis niyan sa ibu neka program so ame Naka nga you know nyahe you know suma masi 12 o'clock sa mo nang lako niya den dega li den dega lele get new information. Am nanda am. Yeah, am not because I'm I choose to do the work, so I have to. Baranya kala moom fee ma gafe maa fay. soo mu de liggéeyee président Barrow dafa métti de soo de nataata soo suma nga takki tuuti yëpp. soo suma gafe bi laay liggéey rek gis naa président Barrow. ah ñoo ma war a fay su yekkee su tuddee ñoo ko war a yokk. waaye kontaan naa si yéen nag honestly you guys are because suma boss yëpp ñoom ñëpp ñëpp they've been saying it seen gannaaw seen kanam the old time been saying it just keep up the momentum way yàlla Uh, lan moo la motivate sol ba nga nekk di liggéeyal Gambia liggéey bu métti because yaa ngi dem different different countries and gis nañ nit mu tukki mu daw gis nañ nit mu tukki mu ñëw mu mu change ay ay mbir dem finally commitment bi rek commitment bu rek lay am I have the opportunity to travel but this government, but you know, I choose to stay in the Gambia Maligay. Yeah, that's it. Yeah. So, so lan nga gëna naman, lan nga gëna um, Mbahal. Mbahal ya? Yes, Mbahal. Um, how do you call it? No, Kerenkech. Buetal. Buetal. Awan karoni kala so. Eh, kan so gani na chale chalinde. Wai kontan na sien bega. Wai ku ne kadi lagi gisol yayi mele ruska te fe kane kolo ruska so ina tal president baro sma smal ya. te ruska dule smal. Bulo benen melo kan la le nek. Ah, so ne ligera ngene ka benen so. ay salute la man maa ko wax ku ne dégg mu ngi noonu <laughs> ay baabu soo turee rek ni ah, kii mooy président Barrow ah, nataal katami moom moo de nataal président ay baabu sama gars yi waxoon ma nekk si gannaaw si nataal président Barrow dama ko ne président Barrow tey smile la mu def nii président Barrow dafal nii yaa ma dégg stressal sa kanam <laughs> ah kaay nga ne den la suma reporter na biya kaay eh, kaay bro loy mek mo bo so ko wa yo tapen ga bro na gam bro loy nanga def jama rek si man sant rek boy ala dela wasa bunyi dafa rafet mo da yangi sma ah fok ma sma di kamera ba taxaw ah so sa kamera taxaw rek Wow. man ma ngi ñew ak stress xoolal sama kamera No, bu stress gambia dëkk bu neex la waaye nag su gaay bàyyoon caay 1200 bi na gën a because ñu ngi koo fay si suñ taxi so yow noo tudda man Ousmane. Ousmane naka Foun. waaw ah, yow suma mbokk nga Ousmane Foun so yow ban dëkk ngay dem ni man Amérique ngay dem. Amérique waaw. time nga dem Amérique ndax dem. non man dam dee dem di ñëw. nga ngay dem dem Amérique. dégg nekk ah. waaw. boobu ah. moom ñàkk a pexe waaye di nga ñëw. man four years ago. waaw. so daal bi nga ñëwee la moo xaap. bu ma ñëwee gisante moom rek waaw. ah yow xam nga moom def di ma de maa ko wax bu àgga dafa ko moom <laughs> yéen kii dama foog ne young man la maanaam xale la ndeke xale bu spoil <laughs> dégg nga mu maa dugal ñu ne bari filin waaye nekk góor tan ah yow moom bu dugal wax suma gémmiñ <laughs> ma dara ma dama noppi de ah yow xam nga di ah. jarut ma wax ah, wax bu àgga moom du bi moom du àgga ah. yow waa Amérique ñoom ay wax bu éega dafa ko moom ndeke Dedit, mano fumaneca mas maefa neca, bonte, mano ka anga bayu. Oh, wa, santa ya. Mashallah. Naka yimmer, naka la tuda ak nuyu. Uh, eh, wa ma ngeen nuyu suma yaay Emi Touré. Su ton mom tay jabante bi duma ko def. Mhm. Waaw. Parce que mom bum agé sam So I'm very grateful. Ya boy ñu ngi la nuyu di la nyana gudda fan wir gu yaram lu bare bare bare. We love you. pro naka woon sa holiday bi fii you yaa ngi ñëw si sa jabar xam naa du ñàkk jabar ju mokk pooc mu rusi bam dog ah roof jëni roof ganaari def yu garaaw a garaaw non trip bi moom gudda na gàtta na waaye moom lu gën a lu ma doon gën a neex mooy ne diggante bu may jógee fu may dem ak fu may aaga dina ma jël one hour soo tari bi bu baaxoon moom tamit sa trip bi di gën a neex parce que xam nga boo accès fii moom tamit war a ñëw fii duga si moto bi rang rang rang baa syndicat bi ko su boobaa ndiga bi do koy njëriñaat soo su boba nak buñ defee yoon bi ñu mëna a am ndiga yoon dana tudd ndiga bu baax di yo ya deel ah waaw waaye ba tey langang bu ndaw bu fi def ni ah. mo demee gis docteur <laughs> yo sa verné na ma ah suma sama sama daxak yow yo waaw safun dëgg la de so tell uh, sa holiday bi what was the best part of the holiday No, suma holiday bi best part of it moy just eu suba nga xam duma du dem liggéey that was the best part because waaye eew noppal ko rek dara daaxu ko xam nga kuy dog dog it a tax te ñun soo gisee ñun ñuy dem di ñëw dañ bugg a dee si moom tam noppal ko parce que seedaay bi rek yooyu noonu soo su boobaa foog ñu ñëw fii noppal ko. gañ loolu neex naa dégg ah, bu ko defee rek si tooga yi nga jot a lekk xam nga fuun nga sant du ma ko wax kenn yow fayal caméra bi lii bu ko record ñun ñaar rek la suñu diggante ah, su ko defee rek nga wax ñu ah, lekk ban mooy nekk di best part. non man moom anything am duuti rek am ok am bu am diwtiir diwtiir waaw comme ban si mooy suma favorite waaye as long as am na diwtiir aw eat it ah. yeah kudu na loxo eh yooyu dégg di lekkee kudu banta rum yaaga yaaga si géej taxul mu doon jësit ñun dañuy jël suñu loxo yi sa jabar soo xëy xam eh, koŋ lu bari naka naka eh, diwtiir lu bari ay koŋ lañ ko de lekkee oh, so su ko defee sa loxo dafa yéen te soo demee xoog marga saabu loolu mooy njëriñu saabu tubaab bi bu mu doon saabu dafa xalaat si ca waaw mu doog a defar sax. sa bu dégg ay si ca yëpp. nekkul sama sa def maanaam. ah yow nga bëgg a moo right so sa holiday bi you know kan nga gis ko xam ne kooku nga gën um, gis ko. non man kay damaa ne suma jabar ak suma doom parce que moom tamit soo bàyyee gannaaw njaboot it's very hard yow nga nekk fii rek sa xel nekk si ñoom te distance bi dafa gudda nekku na nga jokkee waxu gis ren. roota moon tamit sooy ñëw da ngaa pareyaas sooy ñibbi da ngaa pareyaas te xam nga tàggatoo moo gën a métti ñëw parce que booy ñëw li nga faa bàyyi bariwut waaye booy tàggatoo di nga fi bàyyi ba bari waaw. so video call nga dee waa ndax direct rek yow da ah, video call laa dee gën a parce que soo tukkee moom tamit nga um, bàyyi sa doom gannaaw yu wan a communicate mu gis sa face bi su boobaa du ñëw fii mu foog ne benn zimbara di daw. Um, madame nga dee waxal njëkkaan daal. non ñëpp laay wax. kan? Semua faham tak? Tamamen ni kaita ke baju suka Arab. Ya mesti kita safir delete nak. Ya oleh semua dekat no habis ofan kan dekat si Amir. Man, mari dekat um, Washington State. Why Gambia ni siatu yang kau hamil. Siatu. Wah. Masuk office benar ke Gambian talent. Oh. Pak Usman. Pak Usman. Washington West African Center. Ah, Washington West African Center. Ah, ibi Gambian talent. Wah, hamo Pak Usman kan, mau yo bante kau bante. Paski daya nama help you beri. Why mom tamit Usman, how mo ko diary de? Why mom hamantenak man kom suma cousin. Then then then then def theater St Augustine. Kan suma to cousin bi. Suma cousin bi kun mom actually sa mugi Ohio right now. Why dafwe dafwe you every now and then to Rini. No, dina ko bae pa Usman, mom dina ham. Wow. Why bukan nyo ham num tuda? su ko defee rek nga gis Pa ma xam ne kii la parce que xam naa ñu moo àttal bari ne ah non xam nga àndandoo bari na waaw waaye xarit moom benn benn la waaw parce que moom so non bàyyi ma su ma ko gisee jak jak ma doog ko mën wa wax oh. gis nga Gambian bi suñ dajee négatif bi suñ dara du dem kon waxal su ko defee la sa borom mu jàng non gis nga man um, I prefer thanking people and appreciating dem because mom DJ DJ way of DJ America mm. te he's really good at what he's doing Why Mom tamit I feel like people around him are not that supporting us Mom num mu wiri ne because gis nga tukki dafa metti te ñu bëri tukki ne So demee te am na ñoo xam ne 20, 30 twenty thirty years America musu ñoo ñëw Gambia Why Mom tamit it depends on how you respect people how you carry yourself around people ak yow nak nga ndax gestu nga sa mbokay Gambia gestu nga sa waju because ñu tukki ñep so sété ñu bëri buñu agé ren fàtte sen waju yi bo mo tax moom tam yaa nga fàtte ren tax duñ gaaw ak si Gambia waaw. non pause ma am ko wax mu bàyyi xaram xarit ak àndandoor parce que man siyaatura dëkka waaye ma xarit ba pay very people very few people ñoma fa because the Gambian community there is fun way mom tamit dafa bëri ñoo xam da nga dox ñuy gas ñu ñu dagandu وهذه هاي ندم يوه بانسيو yeah that's not something or hamne it's good guy maybe understand ni bëgg nga understand xana pa Ousmane ñu mo andal baxun o amna ñu bax way amna ño xamne man dem na xew gis sen ñuy wax lu ñuy wax ci pa Ousmane xam nga man xawmako so man duma wax waaye man xam naa ñooñu ñu ngi wax ne kii suma so la waaye ñoom xamuñ luy xarit parce que xarit of of dëgg gis nga soo demee dina guur si marché su ñu nee xarit better half ñoom xamuñ luy better half waaw ñooñu àndandoo lañ waaw àndandoo ak xarit dafa ute wax kon su ko defee Pa mm-hmm. mm-hmm. mu bàyyi xel ñooñu non jarut ma tudda tur because soo tuddee tur yaa parce que dene sax da nga ne fen fen bu rafet parce que buy defar nga fen ko moo gën nga wax loo xam ne dafa yaa waaw waaye mu ngi liggéey liggéey mu ngi liggéey liggéey because yow ku war a tukki dem ba employé ay nit Gambia that's a life investment ba pare it's investment boo xam ne tey dina def yow sa poos xaalis def pos si keneen ak keneen xaalis yeah so that's very important because ñun ñëpp the best luñ bëgg a suñ ñibbisee ñu mun put ourselves in a situation where duñ help suñ bopp rek waaye nañ help every other Gambian loolu moo tax nit ñi Um, almost 32 young people la employ Gambia ñi nga gis ni yëpp ay ndawam leen ñoo xam ne musuñ da dugga school ñeenay musuñ da dugga school ñeenay dañ leen drop out ñeenay foog neen na sax amoon carrière am na ñoo xam ne si university bi leen nekk but dundee jànga um, theory part moom moo leen ini you know just most of them are traveling they're doing what they're supposed to do and recently rek empower another I think thirty young thirty four young people you xam ne ñu ngi ñëwaat Gambia do the action and allow people to talk. yeah loolu moom dëgg Why moom time di ting mooy ne Pa Ousmane mu de def lu baax waaye su government bo hamne ne support into expanding moom business ambi because so America sax so so amee dara si am na ku la beneen dara si loolu moo seen business day dox waaye Gambia bi tey moom su waree ñëw fii nit ñu suñ it will be bigger than this because Gambia am na highest. man I don't believe people di wax ne Gambia amul xaalis fii yoon bi yëpp so nekkee di dox di ñëw da ngaa gis ku nekkaa ngee sampa sampa boobu noonu kenn tibu suuf dem def ko fa you put money into it so which means there is money in here Why it's not distributed because your tey soo amee million def ko sa néeg keneen def million si néegam investiroo ko si youth si why investor ko si dëkk bi They can du develop parce que government bi rek mënu ko develop government bi moom tamit has a 75% into it and that 75% is not going kon nag uh, Gambian Talents TV uh, definitely, leen seeni liggéey Pa Ousman is behind you and uh, try lu mu and xale yuñ fa am wax dëgg neex you know di Nabiyes di Babu di Maymunas they try let's go let's do it let's not care what people say si kanam tired my bopo is meeting, my tanka is damayin nakam maa ngi cool sis bro yo ñaaw nga maa ah jërëjëf yaa rafet nga man la na Ya rafet non ngene ya naka Ba amna sa jege mom. duma duma ko jël nak. <laughs> so silone. loo ne maa ngi cool sant yàlla ya rek Yo sama sa. Ya. Ya fi ñew dégg naa de xaja xaja nu ma de Yo ni nga mu ne xaja No, man nu ma ah watal. daf ko fi oh la la dafa mu ngi mu ngi so noo tudd maa ngi tudd Buuba Buuba naka Cissé Yeah santam tambe bon fo sant Ndéga Cissé lekk rek ba loolu waay eh. sama kal na xam naa nah, nah, loolu dama leen dee toppali naka woon sa holiday ya enjoy naa ya, dama am stress bama ko enjoy na stress bu mel naka dama apply wifi ga jox suma halisi joxuñ ma suma wifi ga nanguñ ma jox suma halis be lay waaw ya. ñan la ay net yel complain bi mala jox free na ho gay ma gay so len leen joxul suma halis maa video gay to dam ko upload mhm. because the money you dëkka ma saaf gaal lu ma war a have love it I do everything with them guys don't baat saaf si serving. Small holiday jeexut maa yee them because I'm a network bu baax. te ñaata seven thousand five hundred. te yow da dem seven thousand before for kon na dem liggéey. ay si yow nga ah, foofu lu mel si kuma nuyu nii dañ ko deport si jabara moo ah. am advice to the president we don't hate you we want you to listen to our brothers we are not happy in Europe. So when people are coming, our country can be destroyed. Though we want to be love and unity. We want to see everybody feel happy. That's why we come home. We cannot stay there. That's not our home. Here is our homeland. So bro, neka nga ni walo hamna lu am solo la. Nga ne eh, den deport kima gis na hogan? Den ko deport? Defut dara? Suk asila bi jalut jelut jabara mo fly ñew ni. I just then I enjoyed my holiday last day is all like stress. Mm-hmm. So dem tamit deport niti. Lalu wa uh, thanks to you guys you on good your job tell pamu dona sa jigar man ko salute sama jigar tudu pamu mu mistake waka kama la tela Lagi yo uh, coffee fe ka sa jabar na sa janka na na sa na la no no no ama jaha ah. jabar itu bla ame ma ame ñaari dom ah. ni yeb suma jabar ah. kisma magi jabar la kismas mooy suma besti ni suma doomi sister lañ sa maanaam ni sa ay jabar len si beneen wi non demi suma sister lañ man a gaañu ba ko ndeyam waaw déedéet doom la sa euh, doom ah, mooy sama doom oh, suma mag doomam goro la bés ah, goro la amee nag ah, yeah jërëjëf mu yëf jàmm ah mu ko dégg thanks baba yow yégalal loxo bi fii bro yaa ba rasta lan la Gambia lekka lekka yi ban lekka nga gën a <laughs> ban lekka nga gën a mama Yaasa. Yaasa lan. yaay Yaasa de. hey yéen Gambia nice. waa kaay bokk naa si bokk naa si sista man mënuma laa interview. am may tudda fan ma. teew ma la naka nga tudda. sama tur ndax ndax nu ma sanse bi moo tax ma wala sama tur. ma sanse uyu leen num nice. gis nga soo bëggee xam may tudda fan mata ta ñu may o oh, princess of Yuna nag. princess of Yuna. waaw yéen Yuna kenn xamul fa. ah suñu service bi neex na. Swing service, we have money transfer. I did it. Hello, hello, hello. I don't take transfer for anybody. No, free transfer si suma télé bi. maa bank. jole ma xaalis jox ma 5000 léegi ma jox advertisement man ma bañ yéen kii ku service la kii ku mun liggéey la de waaye léegi fàtte ma seen business bi bugguma fi bank business legi wax ma yow lu tax you sant yu la fet dama overla habi because it has been a while now. gis ma my uncle, then ma gis ma uncle te mu it diga la my content wa dama start also because xamna na su demé bala ma koy da dafa yaga so ma big man ko fuma nek ni big jere jerejef dina len wax jef way thank you so much so, ko togal lum gëna enjoy suma uncle mostly dañ ko dé togal lu neex nak because dafa like yasa moda so dañ ko dé togal lu neex nak don mo dañ ko dee def bye bye ciao bye bye ciao So fi taxawee wati nga ne yaa promote sa business no bro yeen la dan problème bro man dama la gis rek la semester baa nekk nii na nga ah, bro man dama xamee semester dama dugg plane ba soona taxawal bro dama dugg plane ba soona yow taxawal xam nga ma ñaata yow maa ngi dëkk jàmm ah yow non so wal bro ma ne taxawal nga yow dama nga toog yow kii dama ko box de dama ko box de na waaye yéen dana wax kii mu bàyyi ma ne wax ak Gambia dañu naxari man du naxari yéen a ma attaque dama la attaque ful kuru nga ne kii mooy na ma ne si sa baala ma non nga taal si semestre yaa ni non nduru na ko nduru na ko ah. ak rasta ak na ko ah. <laughs> waaye kay yow laa bëgg moo ne ma bëgg a gaay ne fine fine noo tudd Sam Sam naka Sam Samba waaw waaw Sam kan yu imagine man maa ngi sant Sam I

ah ba nga moom loo wax moom mënu ma ko na dégg dégg dégg wax wax de doo ñëw si kanam bàyyi loolu waay ah waay bàyyi loolu si sa waay ah, si maa ngi ni sant yàlla rek musi yéen feeñ na sa bi de gisuloo waaw di waaw lo straano lo sista non non non nuru lo straana sax noo gisee dëkk bi ah dëkk daal ma ko gisee daal loolu waaw ay nga sista bi dëkk bi Hey fuck man ma tawag boy si wax naa si man gaal si man nekku leen suma xarit man jigéen du ma koy bëgg a gis du koy bëgg a dégg den den den bah gur foo ko gis mu ngi xaxataay doo leen dégg si wax yi kenn man loolu laa bëgg a dégg naka. maa ngi fay waaye yow sa rasta lan la. <laughs> mu ngi nii rek sa maras na la maras la. <laughs> na ko. maa maras na ko. Oh. leen ma ko. maras na ko. maras na ko ak si airport bi. lo ñu mun a walooy def. Ah, fikir nana nyogung sun barol berek sun angka bas you know. Yeah. The father, you know. Yeah. So, ah, yeah, why not? Family villa, you know. Ah, yeah. For real man. Yo di kana yo tamin semester. Saya sirin bila na mo ame sa gambe. Jerejep. Mo mo ame sirin Ewa. Holland. góor bi moom dafa nekk di defante dina xam ne ñoo ko dàq defante yow lan la paa bi ah li nga wax na ci caméra bi wax mu natul ah yow doo ak sa te bu ñu oor nga def sumaala ma oor defal sumaala de boñi na génn boñi de génneel boñi génneel boñi <laughs> génneel boñi ko di ma ko wax kenn waaye ah? holekino musanze holengobe nomusanze nabiwona nomawasansabe balibuho yako etonywa badikuire jimoni lawadi <laughs> ye jimoni nangutawagisiŋenki kai kai hana yarona moto kai yéen groupe bi waa tooñkat yi fi ne na nga def Modou Slow maa ngi live nit yaa ma ree mun nga ree ina sa shot bi lan la ala ah, ko ras ala yaa ko raas ah Gambia mu ngi nii wax naa ko man Fatou Sama namuma dara suma laa nama rela nama ànd ngeen si na àndu leen si wax leen waaw déedéet walen baro employé leen ko media baro employé leen ko media parce que dañ ko soxla si dëkk bi ngeen ngay def lu rafet ah. ngeen toj dëkk bi waa NPP dem ni mbéj ma sa dama bul <laughs> naga waaye pan sista. ne. waaye borom bul dégg sista. rasta ni nga def daf ma nee. Gambia nice. Gambia Street. so mënuloo wax léegi te yaa ngi doon I said beautiful. Welcome to Gambia. Thank you. This is my smiling Kosovo. My second home. Your second home. You have yeah. a wife here? No. All right, look at the camera. So, uh, tell us, which country are you from? For television, huh? Yeah, I'm live on Gambian Talent. Yeah, I'm from Holland. Holland. Yeah. So why Gambia? Why do you prefer coming to Gambia? Yeah, I'm looking uh, maybe for a second home, maybe to work here. Yeah, nice, nice people. Yeah, enjoy. Can you speak any local language? No, not yet, but I yeah. but I will learn. You will learn. Yeah. So I train you Nanga Nangadef. Sorry. If I say Nanga Def means how are you? Okay, yeah, I will remember that by tomorrow. Yes, and you will say Manfi. Manfi. Very cool. Okay, Magadet. Manfi. High five. When you go, watch my TV? Yeah. <laughs> Ayo, man ba, halipin ang binena ma. Thank you. Man babu yo sa afet darama si safo daga bain dag mawahak pabu san sabi gis kan pabe haftan am babu ki da mora may haftan. Daplo ko me ah, bete yeningi sila gamen babangir kondo. Eh, ngejo to ni kon ntom baba lati drame ah, baba da ngeji airport jang ngay ko mun mm. mun simo renata mun ni am eh, nata mfango bare musu kende ba wala nyenta bola nang kana bonan belgique nata wala kana wala bendung akitanya bare musu kende ti namo kende eh, ko ndema ndemu gambian wol ti bare mantara sirin jande be sirin senegal le for the past 20 to 5 25 to 30 years mbe sirin darle um ala naata nit ñi musoo lakkuwol laañoo kan akita ñe baari musu kendeti je akita ñe moo kendeti danaka akita naatema famille famille oti sa ngeta famille ti so kammala <clears throat> naabita uh, eh, du aka jiinin janne aka naanin janne la nabe bolana tubaabu du abita senegal fana aka jiinin janne la ka la suwo kono o kamala bi ilem a ñanta pour kana naata pour kana kana futa wolema kana bendung uh, eh, hadamani mbadi meyale ya meyale nko ay wala wafi manu senegal banko kan mfana nata na banko kan be na banko kan ne ngaita ndala ko jam mfana yalati o hormoni o bu nyame ay adina senegal mfana lafta pour ka jo wala kana wala itan dala jang ka itan dala ko gambia fana ngu banko de meyale nko ya hadamadi wala hadamadi wala bu nyana la nyanto ya diala le ya hadamadi ya nole ya badi ya nole eh ye badin sile mfana nata pour kana wala itan dala ni da mu ala sinya fo da kana nyim banko kan fo dun ameta kana banko kan am ameta kana banko kan ne because ala tawta kana nin la eh, na nabroda ni membe ko ma jana be ya poto do janne jama jama anka wala kana kama ka samba na eh, na bitala wala ka samba na minala fana wala kana bendu bara ala nata ki ala nan na kabonan belgique kana ni janna wente fo tara janne bara ala talib mo be wo kan tara jaw kan tara senegal le bari ñinan koy alhamdulillah rabbil alamin ay tara janne a kontano warata fa ni o warata bake a baraka atol mujmal gambia talent promotion ngal kibaro moy le mantara jan nyaw nyarandi alla do ko nyinyata ngal tentu ngal jeyi e albe kato menna ala kafu e, al, ni mu fana mu banku do golti ngal tentu ngal jeyi be do ala le simani jati kende ala ni harje firimo alla place ala mala ya kafu alla lod la ala mala ya bamba ni banku kanjang faali alfansu television o soto comme membe ko jiates eh, wala menta mita jates la wala menta mita qtv la ala male o kalye ala barka ngal tintu ngal jey ala barka hande gabi kadi mangi di rap ndeke nabi ya dugal na ma si mangi pe penuma boy bilat tasel bro nak nga def man maa ngi kuuli dang dee rap tamit. dama dee rap di yow Gambien yëpp maa fi daxa rap man ak Sinate ñoo bokk a baay bokk a ndey bokk a baajan xam nga Sinate friki ju. tegal sa caméra bi no nga dem si woy léegi no. sapaat bi nee na sapaat bi dafa over nee. ma wéyal kan Gambien. Adama Barrow. ma wéyal. yeah because he have to make the country better you know. waaye su ma wéyal ñu da nga ko wéyal lu neex di ma su ma wéyalee Adama Barrow lu neex na lu naxare. den ko den ko rhyme pour mu oh, bañ a mer mu understand ko comme dégg nga nekk di wax you know nekkul ne nga wax ko ne eh monsieur président yu yu yu. léegi léegi yow man su ma waree rap yow yaa nekk manager bi léegi wax ñu si lan lan moo nekk si Gambia first wax ñu sa tur ak ban dëkk nga jóge. Hey Gambia, uh, my name is Mustafa and I'm from Germany. Uh, when I have to rap for the president here, it's going to be like, hey, Mr. President, this country is for us and it's for all of us, the Gambians. And when we are outside in this country, we see a lot which is not making us comfortable. Uh, number one, the security fees at the airport, for me, I find it not so crazy. About, uh, when the people pay money and they come to the Gambia, they learn one year. The next year, when they come, they have to see that what they are paying at least is bringing little bit of progress. Look at this. The airport, the concrete is looking very crazy. The people cannot roll their suitcases them own themselves. The people only have to help them to roll it. In Europe, you do it yourself. You bring your things up to where the luggage have to go. They put it in the machine. People to carry on. Number one. Number two, look at this grasses here. They have to water them every day this is our international airport, the whole world. When people come in, they come in here first. After this, you go, you see the town. Africa, we understand is Africa. Things are not very easy. But Gambia, to be honest, ah, I remember something also. I have to talk about this also. Nawek. Nawek is crazy, my sister. Why? Uh, I was in the Gambia here last year in, in, in November. I applied for a meter. It took me three months. In Europe, this is something that you can do online on the paper. You you register that you want to apply for a meter. They know it. This is more progressive. This is more counter progressive and pro whatever how to call it uh, counterproductive. You know, bring technology into this country they have to bring proper internet for the people. They have to construct proper networking for the people. Communication have to be really cheap. The roaming here is really expensive when you use roaming. One minute it's like, I don't know, I don't want to tell lies, but it's crazy. I spent 10 days here, I go back for the roaming. I don't use it every time, but I paid more than 200 euro. It's crazy. In Senegal, I could use my roaming. Now my roaming is not working here guy is just here. What is that? It's not possible. Now they have to bring this meter into technology. The whole of the government, even, they have to bring technology. Now, immigration, everywhere you can go online, you fill your form in. If you have to go and pick it or pay money, you can go there active. This have to bring progress for the country. Everything manual bring no progress for our country, Mr. President. I'm talking to you. I'm a Gambian as a brother, as a citizen. This is what I feel when I'm outside. And the markets also in the Gambia when it's raining. Soon the rainy season is coming. The people are sitting in the market full of insects, under with water. People are eating their. It's no wonder the people are dying. It's so crazy, you know. It, the health have to be considered. The markets have to be built. Water have not to stay stagnant everywhere our food have to be clean. So in this case, Mr. President, this is my own advice from my heart for the Gambian people. We all work together as one nation, as one people, but the system definitely have to work. And this have to work only the people that are foreign in front in the offices. They have to play a system, not like you go to the office, you have to pay 10 euro somewhere before you get to your what you need. You have to pay exactly what you need and you have what you need. Not like pay someone on the side and get what you need. You pay there also. It brings nothing. It's only bringing corruption to a highest level. If you are to tip someone for money, you can tip freely from the heart, but not like you go in an office, in an office, in a country office, for example. Now, someone will bring you on the side and tell you what do you need instead of going to the director where the meter is order where you can take the form to fill in. Someone have to stop you at the door and ask you, well, uh, eh, hello, uh, what do you need? Come here. I talk to someone. I don't know this. Before, when I was in Gambia, I know the system. I don't like it. And now I see another system which I see is more productive and more easy, bringing more economy. And uh, people are even self sufficient when everything is working. Then the government is having enough money they can help the people. They can build our hospitals, our markets, our roads. The airport for Alem, this have to be maintenance completely. I hear they maintenance the airport, but the airport is not maintenance completely. I don't see anything new here. The roadways are completely broken. The people pay 20 euro. This 20 euro in one year, they can build here only here they can build the, uh, the grass here they put water there they, the place look nice for us, the Gambians, and for the people visiting us. We also need respect. We need respect, we as people and as a country, what people are saying behind or the, and uh, about Gambia. When you are sitting with people in another country, you hear Gambia when they visit and they come back, they tell you I was in the Gambia. You don't want to hear the story, what they tell you. You say, okay, that is my country, it's my people. But what I'm hearing, I don't like it. This have to stop, Mr. President not only Mr. President, the, the, the parliament have to be, be very, uh, you have to help me. They have to be, they have to be uh, creative. They have to be like productive. They have to have ideas for this country. We need this country. This is only thing we have. Is egal ob me leben in Deutschland oder irgendwo in der Welt, aber is unser Land dieses Land, wir müssen hier irgendwie hinkriegen. Boah, I'm speaking German now. Oh, sorry. This country, we have to make it better, man, for all of us. The parliament, the policeman, the army, the, the, the president, the, the, the teachers, the nurses. Oh, okay, the nurses also, you go to the hospital also, someone is sick, he needs or she needs help, but it's like you no one is attempting you. No one come to you or whatever you have to struggle. Someone who cannot walk, how can you do this? Someone have to come and help you. You sit on the care, wait. In the hospital, you are dying. Saying there is no too much personal. At least if you are in a critical condition, someone have to attend you uh, to help you that your life you can live vital. But like this is not working completely. I'm completely sour. I applied for a meter in in in in, in Nawek. It took me six months, and this six months, I have to pay someone corruption. I will tell it on TV. I don't care. I have to pay someone for someone to go and bring this meter for me, which is crazy. It's not correct. I'm completely out of words from this. I'm in Germany. I cannot do nothing until someone go to Nawek order this. How is the name of this order? The people who sell the stand pole, Dabanani that banana also I applied uh, for a pole stand. Before this pole come, it's a problem. I was not in the country. My brothers they go there before they bring this. It's a problem. This you can even do it online on the internet. That you want a pole, you want a meter, they send it you to all the details. You, you can send the money through bank transfer. It's all possible, not like you going there active and all over. This is all what I have for you, Gambian people. Thank you, we appreciate it. You are welcome, my sister. nii la semester yi war a mel ni moom uh, ñëw uh, li nga xam ne moo la naxari si sa dëkk nga wax ko soo ko wuutee ku la koy waxal uh, kon nag yéen a ko dégg. te moom sa waaji moom te ku la solal te moom wax la ku la solal eh, na ko maa ko sanse nag bu mu sanse ba teel a soog sanse nag wata wata waaye dala bi mom? danga ko awa bi mom moomoo ko waxaana bi moomoo ko baabu affaire am neexuma safut ma taluma no question answer no no waaye lu leer daala bi mom boo ko si sam boo danga ko awa waaw te te xam naa may xam naa may ko moom may la moo mën a am daala bi ban may may njaay léegi kan ngaa ooya may njaay ma may may daa moo xam ne suma may la suma may la waaw bés ni gis ne baabu fayee naa ko imagine leen ne suma yaay la moo ooyee may bobu boobu si kër bi yow mi moom nga ooyee may wax fi wax fi dañoo xee naa ko si suma wool baabu namoo naa la maanalo maanalo kon na mu namu gaay gaay ñu ne da nga gëj a ñëw airport parce que léegi du am dara baabu no airport time bi ñu bëri kenn ñëwutat nag ñu soo ko fee mu ngi wéet waa am naa ñu bëri naa tobaski it's an empty airport. waaw airport bi daal mu ngi nii la xam amun ticket wéet na de. Ah, so ñu bëri amun ticket. wa amun ticket benn benn booy gis nii. Eh. gungeekat yi la. comme kan ak kan amun ticket. ay. ña gaay daa bëri nañ daal. waxtaan nañu ci seen fu nekk ba bëgg a jël téléphone am bi mu whatsapp am bi ñu nekk Amérique ñu nekk ba war a amuloo Europe. man am na ay mbokka déedéet ñu ne ñu sant jànxaay musuñ ta dem Europe eh am nañ nag ah. waaw ba soo duggee plane man soo toogee ba kuma waane waane lu ah. ma ma mun bi ah, hmm? doo bent bi nii waaw foog naa ñu ne na musuma faa doon foog na bent nag plane du dee am belta tegekaay am am na café plane du dee dara suma duga plane nak waye nabi mus na ko wax walé dañu def ni ñu dem ñu op mu tax ñu xol ci biir yo xamna né wa airport bi duñ la bay parce que amulo passeport amo da suba la gete bi ay waaye suba ay ndaw yoy nonu melas lay def duñ ma gis ma bëggee dem na buma gis ni dé mun naa ay yo xam ne dem waxtaana yo, man ko sol kos rek la dé bu ga waxal babu yo amulo kos doo wax mu abalo kos waaw non ki man big mam kos la am ki big mam mu ndaw kos la am waaw baabu dégg sa lifin bi simis bi daf ma neexee bii xamee naa ko waaw bii mooy daal mooy loolu jàpp ko mooy loolu rek eh, boobu kee tam moo ko aba waaw waaw waaw gis nga non maa ko abaloon ñu xam mu nata nata pos ko ma soog ñu fo ne maa ko abal mbokk yi maa gom ngeen ko gom nañ ko eh? mbokk yi maa nañ ko baabu man woy parce que suma baat bi neew léegi yow ma taaj hmm. mbokk ba gom ngeen ko wàññi ko wàññi ko ba wàññi ko wàññi ko wàññi naan neex a baat am na ku ma ne ma mi ne fa bëgg a baabu mu siiñ musu la baaj bu mu sumayel. Eh, ma big ma du la sumayel. waaw ma with paquet du la sumayel waaw. <laughs> baabu léegi xam nga lu ma bul ñëw man. eh man mama borom airport. Wow, yow yow da nga la xajal rek waaw yow yow nga da nga bëri fans loo fi manqué yëpp kenn musul waa ay Miss Fat ay ah, Miss Fat Samba kenn misul la yaa nekk di fóotal sa bopp ñu miss la waaye kenn misul la. Listen, okay, please text. Please text and show me fire. If not, I'm gonna lose hope there. Uh, ah, I'm gonna lose hope. Ah. but we to. dégg dégg dégg mm-hmm. airport bala mu dee nee nga ñëw fu airport nga am ñooy interview mm-hmm. waaye xoolal rek airport bi daanaka ñëpp ñu bari ñëwoon is it ndax ñi ci amoon ticket o is it ndax guddi guddi la gaay di ñëw den xam ne maa si baabu yi dañ leen dee sonal o whatsapp baabu nuyoon si soose nga tàggatoo si soose amma dugo hande kabe abe gammeten se jibe ga ay yalonya araba araba ni ni nyantuma se gammeten ba nyinto mon kay ya, ay airport abe kire dum ba ke re jama manna ngal jama ke banna le bat wala tina ba kami anyaki dum nyama na de manna nto ka wato wate nto ba ka kami ka fa ayaji nyamin tan e, airport dal abe kiri dum ba ban te fengen kilin kilin na min na min kata ni diamu ba mbe te fengere mbe sarodi la jam fo araba na la ka fa le gammetens tibira ay lafta fenfen ka long banko kan fo bantara banko ala bul ko nga loje ayalo nyabe a nyakino nga nyama nin nin fa samba afa nyakino nyama nga ni ay daw daw don nga ko abe munya don atelem adama pet gammetens tibira go jaajëfal sa gaay yi nga xam ne ñoo la doon ay ay ay may wax ngeen bàyyi maaj bi ngeen dégga di wax bu ko kenn dégga nabi jaajëfalu de a ak may ah, Dabo non ma dafa comme caméra moo nekk di tourner tourner boppam ne ah ok ah Nabiya salut salut salut Nabiya nuyu naa la bu baax <laughs> Maymuna Dabo ju la nge nge ko na seen daal ah ni ñu ba ah Miliki Sarr ah, ak suma fans yi xarit jàmm yëpp nuyu naa la bu baax a baax a baax waaw nuyu naa ñëpp góor jigéen Enso ñu naa la waa Miliki yaa ma gën a naa la jamono ji ken waxatul fil ko fil ko nekkatul wax bu fi am waxal babu mu bañu waxi ol jamono ñu ci ñu jamono daf ñu ting man nité de mala nak <laughs> mala de mala santa anyway babu content eh, na bege rek eh, nek ak yow sa su ne ni la mo demee eh, ak semester avenue rek kaf ak ree moo ñu tax a jóg du xulo du xex du dara lu happiness Fatou Samba nak gomu dara bugu dara happy ku gëm xappi rek àndal ak Fatou ngeen xappi ku gëmul xappi nag defal ni abal ma <laughs> anyway um, nekk fi rek nekk di tooñ si airport bi it's a beautiful Gambia more especially uh, su ma ñëwee airport gi semestre yi nga xam ne ñu ngi mun a ñëw uh, di leen ñaanal rek yéen a leen yàlla gën a may xaalis bu bari ñuy mun a di ñëw di investi seen dëkk ñi nga xam ne nag amabuñ kayit ku ñëw Gambia ñu ngi leen naa ñaanal yéen a leen yàlla may kayit yéen a yàlla wàññi déportation yéen a yàlla def déportation bu mu amaat fii si biir Gambia it's sad suñ toogee ñu gis suñ Gambien si nga xam ne ñu ngi Germany ñu ngi Italy ah, ñu indi leen fii si biir am dëkk bi ah, daf dee métti daf dee naxarlu ah, yaayi mbete famille yi gis lu mel noonu waaye di leen wax ne rek nañ gën a góorgóorlu ñu xam ne Gambia suñ Gambia la ñun ñoo ko war a defar waaye président Barrow di la encourage bu baax a baax a baax loo mun a jàppale booyi si backway bi moo expressé ñi nga xam ne ñoo dem backway nekk Germany o Um, Italie nga jàppale leen bu baax a baax su ko defee duñ leen delloosi ñu ñëwaat si biir dëkk bi parce que ñi su delloosee sometimes daf dee mën a indi temptation daf dee mën a tax nga am stress moo especially ki nga xam ne amabut fi dara si biir dëkk bi daf de métti kon booy si nga xam ne yéen a nekk foofu si um, Germany ba tey Italie man leen naa ñaax di leen wax ne ne gën leen naa góorgóorlu ñu gën a daan doole xam ne Gambia suñu Gambia la ah, saa su rek ni ñuy bàyyi xel suñu dëkka di fi yónnee xaalis di fi def lépp loo xam ne mun neen ko yéen nag ñu nekk si yeneen dëkka yi ñu ngi leen naa nuyu bu baax a baax ah, di leen jaajëfal moo exposé ñu nekk Amérique ah, kooku noonu nag di suma magi boppa di jatu si soxo ban naa man laa nuyu di la jaajëfal waaye eh, Fatoumata Jomma kamara kenn yow borom Dubai supermarché American supermat ak African supermat ki nga xamne nak mom suma sister boppa la ana ana camara nuy wati naa la suma yaay démb ak yaay suma bébi bi bu ba way nuy wa kulim rek juum andi Fatou Diouf suma yaay ja fofu nonu si euh, deka bi nga xamne mom lañu oyé India ma la nuyu bu baax ba anti doli na I miss you I bug you I say jamono to you nii rek la moo demee kon nag Nabiya Sarr post me till another day sama baat bi mu ngi métti I cannot talk Maimouna Darboe jërëjëf si liggéey bi rafet bi ba bye Semester Avenue another time another ku yor du sa te quality jas na ñoo yor seen cumbukaay tur day uyu borom jas na piir sa ko bëggee fii si biir Gambia bi dawal foofu sa quality jas na your number one stop shop ana sama jigen ñi dama bëgg ngeen jox ma seen nopp yi ndaxte quality jas na amal nañ leen ay til yu toj daala poos abaaya yu yiiw waaye it amal nañ leen ay boreda yu rafet boreda yoo xam ne pour góor ñi ra ak pour jigéen ñi amal nañ leen body scrub yi nga xam ne nii dafay defar seen yaram bam nice waaye it wuñ fa diw yi ana sama jeeg yu pare quality jas na amal nañ leen fa andi cuuraay cuuraay yu neex house spray ak bépp xeetu baax baax pour seen biir néeg dama ne atum ren jii ku sa jëkkër mere ku ne yow la neex ndaxte quality jës na ñëw na si dëkk bi pour defar sëy yi make up artist yi bàyyi leen gannaaw ñu ngi leen fa amal ay make up product yu quality waxu leen léegi nii foofa sa Westfield jàkkaarloog monument bi wala nga jokkoo quality jës na si 250 01 24 ak quality jës na taral sa bopp taaral sa néeg waaye